conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyantoo coronavirus dafa jeex ci réewum Sénégal wala dafay waaj a jeex ci réew mi samp laaj yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na loolee jar naa laaj ndax mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko ci wàllum transport bi daal di nañu koy teggi fan yi nga xam ne moom la ñu génn yeneen mesures yoo xamante ni jëloon nañ ko ci boîte de nuit yi maanaam daal di koy tëj jamono ji nag ministre yi mën naa dooraata yéenekaay gi mu xëy di ñu xamal naa ñu lu soxal wàllu dem bi ak dikk bi diggante dakaar ak Ziguinchor ci géej gi loolee tamit léegi tey mu commencé waata Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar te jamono ji mu féewaloo ak Macky Sall daat na yàq lu mel ni xamee musiba ak mbelengaan njiitu réew mi ndax nee na Macky Sall mbooleem loo xam ne tere nañ ko jëm ci wàllum rassemblement Macky Sall daf koo violé daf koo daal di moo mu Moustapha Diakhaté nee na jamono ji maanaam nawetaan yi mën naa commencé waata championnat yi naa commencé waat Aliou Nguy Ndiaye war naa bàyyi askanu Sénégal ñu nekk ci seen jàmm maanaam dund comme na nga xam ne moom lañ doon dundee ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr yàq xaalis bi nga xam ne moom lay def maanaam di jël xaalis bi di fay ay publicité maanaam ngir ñu respecté mesure barrière yi loolee Abdoulaye Diouf Sarr daf ko war a dakkal kàddu yu Moustapha Diakhaté la ndax nee na mesure barrière yi jamono ji maanaam kenn warutu ko respecté ndax Macky Sall mi nga xam ne moo jiite réew mi maanaam moo ko njëkk a salfaañe yéen a kaay gi di réew mi ko ci xali Maka Ngoye Ndiaye nay wax ne neexul ba neexul waaye nag fukki fan yii nga xamante ni moom la ñu génn coronavirus gis nañ ne wàññeeku na ci réewum Sénégal libération yéen a kaay bàyyi mbir moomee wax ci PUDC ak phase 2 bi njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay wax lu toll si ñetti téeméer ci ay milliards yu ñu sa fas yéenee dugal yéen a kaay gii di Sud Quotidien wax ci wàllum politique ak opposition bi nga xam ne jamono ji daat nañu yeewoo ginnaaw défaite bi nga xamante ni opposition bu Sénégal amoon nañ ko ci élection présidentielle 2019 yi coronavirus bi daal di ñëw daat leen di confiner ñu dakkal mboolem loo xam ne seen i activité la jëm ci wàllum politique boobaak léegi yàgg na waaye jamono ji yeewu nañu bu passé Ousmane Sonko mi nga xam ne moom lañ doon faral di dégg ak Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall ak Mamadou Lamine Diallo ñi si des kenn déggu leen woon waaye nag jamono ji dafa mel ni opposition bi bëgg nañoo occupé waat li nga xam ne mooy terrain politique bi ndax gis nañ waa PDS génn communiqué ne commencé waat nañ seen i activité Khalifa Ababacar Sall moom tim nee na alxames bu jot dina amal ci lu jëm ci wàllum politique yéene kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Abdoulaye Mamadou Guissé la mu nee na Macky Sall bu ñu waxantee dëgg maanaam dafa lajji ba pare lànk kandaare bañ a démissionné Abdoulaye Mamadou Guissé na Macky Sall kàddoom amul benn valeur kàddu Macky Sall ci boppam moo jërul dóor sa dooma Abdoulaye Mamadou Guissé ci biir yéen kaay gi nee na Macky Sall bu la waxee leneen lu mooy Marème fay sàll rek laa bëgg Marème rek laa nopp jàppale lam la wax la ci ginnaaw dëgg la yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu jàngee fa lu doy waar a doy waar ca diwaanu Touba lu toll ci fukk ci ay góoru jigéen la ñu fa teg loxo ak lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay jigéen ñoo xam ne dañu doon jaay seen bopp yéen a kaay gii de Les Échos mu xëy di ñu xamal laan ñu doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ca Italie di fa liggéey ca tool ya di watt lu jëm ci wàllum tamaate maanaam dañu leen a soppar ñi def leen ay jaam liggéey yu métte métte la ñuy daj ba pare la ñu leen di fay noonu Souleymane Teliko mi jiite kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal ginnaaw bi inspection générale de l' de la justice ginnaaw bi mu ko dégloo conseil de discipline bi war na koo déglu yéen a wurta def ñetteelu mandat libération yéen kaay ñu fekk fa maître Ousmane Seye bi ñu ko laajee ci ñetteelu mandat yi la mu xamle ne na débat boobee dafa teel Assane Samb na ko teelul war nañu see ginde askanu Sénégal ndax Sénégal rek la ñu teg bët yéen kaay gii de la sa ñu fekk fa Cheikh Gueye mi nga xam ne ay jamono jiite woon na consulat bu jiita daan nay wax ne Macky Sall bu bëggee forcé def ñetteelu mandat Sénégal mën naa tàkk deret yu bare bari mën naa tuuru ci réew mi yéen kaay gii de la turbine tournée économique bi Macky Sall doon def moom gisul ne ab tournée la dafa jàpp ne Macky Sall maanaam danoon promenade yéenekaay gi du Source A xëy di ñu xamal naan ñu en tout cas ñaawteef gi nga xam ne gis nañ ko ci réewum Sénégal daat nay bëri lool ndax dañuy gis ay magu jëmm di violer ay xale yu jigéen yoo xam ne ay parental la ñuy doon ndax agent bu Tigo bi nekk ci Scat Urbam Visil ba moo doon jéema a violer benn xale bu jigéen boo xam ne juróom-ñeenti at rek la am ca diwaanu Touba Daaru Xuddoos foofee tamit gis nañu fa magum jëmm moo xam ne danoon violer ñetti xale yoo xam ne juróom-ñaari at rek kese dong la ñu am yéenekaay gi di Stades mu xëy ñu xamal naan ñu ci Chelsea fàtte nañu seen góol bii di Kepa seen yaakaar jëpp ci Edouard Mendy la ñu ko tekk Gary Neville moom nag nee na Sadio Mané exemple ci mbooleem ndaw ñi nga xam ne dañuy yëngutu ci lu jëm ci wàllum football Carragher mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon défenseur bu Liverpool daan nay wax ne Sadio Mané jamono ji mooy meilleur ailier gauche ci àdduna bi yéen kaay gii di sunu làmb mu xëy di ñu xamal nañu yéen kaay di sunu làmb xëy samp ab laaj na Boy Niang mi nga xam ne moo war a jono ak Tapha Tine ndax dina réussir li nga xam ne Ama Baldé réussir na ko ci Tapha Tine Conseil Sénégal